ma patate chaude. waa moo suluxu moo boo gos namu naa la. maa la raw mais terewoon naa la sol mini yow tamit. mais dafa tàng yow tamit moo sulux il fait trop chaud. il fait très chaud mais di ko gis yow tamit. say yeel man kase maa ko war a gis. moom sama yéenu mbote yi yow tamit. mbote. non yow tamit bàyyi li ngay wax. yow yoroo mbote. yeelu bërëb yi nga yor. binat awa kon Bien sûr yow jongoma 4G nga ma patate chaude à moi Wa na de bi duñu dem ci biir nga simé ko bala ngay ñor Ñor non même pas Je suis un ancien combattant yow j'ai vécu pur que le fi wa bi j'ai décroché le jackpot may dohan trianké bi ci koñ bi Ah bon patate chaude xool ma fii kuy jàmb sa tamaate ah xanaa yow ku ruj sa bëgëj ah xanaa yow eh Malick may toppee waaye père kan moo la topp fii di sama koñ nga naan ma lan sa koñ eh Aminata eh da xam kii yow eh eh boo ko waxaatee Aminata ma duma la de kii di patate chaude. père kii sama gel la. hey l'affaire c'est les autres Malick doxaan nga sa gelu baay. doxaan nga sa gelu papa Malick. Oh. waaw seetaan nga ba pare déet déet déet bul daw foo jëm cappal fii cappal fii bësal bouton bu xonk bi nga abonné bu ko defee vidéo bu bees bu njëkk a génn nga bokk si ñu ko njëkk tamit <laughs> The vous I love you.